alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. waaw auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Hmm, ñàkk kenn koo xam ne kenn la woon ci man di Mohamed Abdallah di ñoo gën ko xam si DJ Dooley wax dëgg yàlla maa ngi koy jaale bépp mbokk jullit bépp mbokk taalibi Cheikh Ibrahim ak waa Kaolack yëpp wax dëgg yàlla dafa am lu ma métti trop ndax Dooley dafa nekkoon kenn ci man yàlla daf ñu boole depuis 2002 ñu xamante woon maag moom mën naa la wax bu ñuy xamante maag di duuli ñu ngi xamante ci concert euh, ndeysaan alliance ñu dajee maag moom concert ma gis mu sol lu rafet sol benn ensemble kak yi di kës man tamit ma sol benn lay kës ma ñëw ne ko sëñ bi sa affaire bi de mun a mënoo sa bés moo ko dàq ma ne ko ah yow foo jógee mu ne ma man américain la Amérique laa jógee ma ne ko foo dëkk mu ne ma Medina Baye ma ne ko man tam Medina Baye laa dëkk mu ma ci fan ma ne ko ci monument Baye bi mu ne ma man taalibe imam Assane laa si imam mooy sama sëriñ ci noonu lañu xamante bi ñu xamante ma après ñu commencé jëflante ma ak moom ci ay business yu bëri ma gis mu nekk nit ku baax nit ku oyof mu yor xol bu rafet nag nekk ku bëri yërmande heure bu ñu seqee business rek day ñëw suñu kër bu ñëwee ñu waxtaan ay temps su ma fekkul toog sama yaay di waxtaan ak moom su ma ñëwee sama yaay ne ma Ibnou sa kii bi ñëwoon na fi américain la xaw ma reetaan ma ko waa yaay xel sama yaay ne ma kooku ku baax la ku oyof la ma ne ko waa noonu kooku kay macha allah. ginnaaw gi ñu jékki-jékki euh, rajo Alfayda Imam Assane ubbi ko bi mu ko ubbee sama kanam di DJ Juli moo fa doon animé presque animé na fa deux ans moom kese nekk si rajo bi doon animé benn émission mbalax ndeysaan si la ko na ko jàpp na ko téye fa la jógee moo boobu parce que day bugg wax olof jàppal rajo bi téye rajo bi mais munu ko wax mu ne na ko jàpp na ko téye baat boobu nag frappé woon Kaolack waa yëpp képp ku dëkk Kaolack baat bi dalaa neexoon Juli commencé di fréquenté si fural yi. Eh, boobu ay fuural mu ngi am muy dem fuural bu amee mu dem xool ñëw oyof nekk taalibe seetaan bu paree gars yi xool ko kii mooy DJ Dooley kii mooy animé Alfayda na ko jàpp na ko téye Kaolack yëpp xam ko xale yu ndaw yi góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi nga gis ne kooku jullit akkan la yor jukku bu rafet oyof comme xob ba pare nag bëri yërmande ñu gën a demaat maak moom si ay jamono ma mën a seedewaat ci moom mu présenté ba jabaram boobu mu ngi dëkk wetu kër Imaam Assane Jabaji tamit nekk ku baax ñuy jëflante ma moom benn jour ma ne ko waa duuli man dama bëgg dem Amérique saa yooyu nag Amérique moo nekkoon sama xel parce que dama yàgg rêve Amérique mu uti foofu amul jàmm foofu neexul fii moo dàq mu ne yéen da ngeen am fii xamoo leen ko mu fii mooy mooy mooy Nations Unies quoi fii fii mooy dëgg mu ne ma fii moo dàq fépp si àdduna bi ne ko loolu dëgg la mu ne ma fii nii du du kër yi ak étage yi am na leneen lu làqatu si loolu quoi leneen lu garaaw lu fi bàññees def ma ne ko waa loolu dëgg la mu ne ma parce que bu fekkoon ne euh, fii neexul man du ñëw fii damay toog Amérique ndax foofu moo ëpp lépp quoi bu soo gisee ma ñëw fii nekk fi taali bi am na lu tax ma ne ko waa loolu c'est vrai kon mooy jege kiraay bi euh, duuli jàngal ma si àdduna lu bëree bëri ba moo xelu sama xel génn si Amérique xam na ne tukki amatul njëriñ doxatuma sax loolu moom moo ko dindi si man moom duuli euh, beneen bi mooy ma gis ci moom taalibe Baay gis fu ma ko fekk rek day yor kurus day sol mbaxana pays bi sol yëre yu rafet bëggoon boppam nag mujj gi dafa jël jëngal yëpp ak daal yi indi woon jaay ko dem jënd ay jàllaabe jënd ay mbaxana pay bi jënd ay course foo ko fekk mu si jumaa ji jàpp julli du jàng alxuraan daf ay dogam si laa xamee ne Baay Ñas dafa garaaw parce que américain bi nga ñëw fexe ba mu jàng alxuraan tarbiyu xam yàlla daf ay dog di wasifa di xadara mën loo xam ne yow mi nga xam ne yaa dëkk Sénégal sax mënoo ko yow mi wooye sa bopp doomu julli sax moom li muy pratiquer l'islam ak diine yow defoo ma xam ne ne dëgg-dëgg ñi nekk fii ñu ngi nelaw te defet la moo tax yu bëri def dama ko jàngee ci moom ma gën a góorgóorlu ginnaaw gi bu mu jógee Alfayda sax après dafa yeneen euh, gars yi commencé ñëw yeneen DJ yi commencé fa liggéey mais moom nekk na fa deux ans presque euh, daaw rek gisee neen daaw bi mu ñëwee si gàmm gi bu mu jógee kër imaam ñëw na seet si ma sama kër fekk gan yi fa mu ne ma foog ma jaar fii dama la namoon naka mu ana sama yaay ma ne ko meer mu ngi ci biir ñu waxtaan affaire yooyu noonu saan après ñu ànd doxantu ma ne ko duul naka Amérique mu ne mu ngi fa rek affaire yi sant yàlla si laa commencé nag yéemu si Cheikh Ibrahim ndax toujours man su ma xoolee duuli ma xaatir rek damay xam ne ne dëgg dëgg Baye international bu ñuy wax ci Baye ak xatul boobu ni def ba dajale xeet yëpp andi leen fii ñu gëm ko mu leer man ne ñii nii bu doon lekk gu neex rek duñ fi ñëw ñuy ñëw fii di leere ay cereeg mbuum ay cereeg meew bàyyi lu neex lépp si laa xamee ne dëgg dëgg Baye euh, naxul ñu kenn quoi bàyyi wan na nit ñi yàlla wan na nit ñi dëgg wan na nit ñi xam-xam wan nit ñi njëriñ man nag li ma mën a seet moom mooy jullit ak xel la te Cheikh Ibrahim nee na moom doomu aadama bu génn àdduna nga ne jullit rek ëmb na lépp ndax jullit moom lépp a ngi ci biir waaye tamit tijaan akkan la ndax am na chance tuub na nekk na jullit nekk na tijaan nekk na taalibe bàññis te loolu yomb loolu rek sant yàlla la damay delluwaat nag sama sëriñ Baye Cheikh Mamour instant waxoon mu ne aarif du dee waaw aarif moom mënul dee ndax day jóge si kër gu yées rek dugaat ci kër gu gën kër gu mu jógee imam Assane nag la ko ñëpp xamee ak waa kër imam Assane ko ñëpp xamee képp ko xam juuli si imam Assane nga ko xamee man ci moom laa ko xamee mu bëggoon imam Assane di ko xidma guddeeg suba ngoon guddeeg bëccëg every day every time muy diggante New York ak senegal da ko doon jàppante kom ndox te nag dafa fonkoon gàmm bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko fonkoon da ko bëggoon lu mënta xew day ñëw gàmm ndax bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu te ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dëgg-dëgg mooy Cheikh Ibrahim kon moo tax bu bus boobu teewee day bàyyi Amérique dagg paas ñëw fii bu gàmmu paasee mu soog a delluwaat kon moo lay wan ne taalibe la moo lay wan ne tijaan la moo lay wan ne jullit akal la man juuli mën naa bind ci moom livre mais comme waa Malben dañ def man benn euh, émission bu ndaw damay résumé rek parce que mënu ma wax li ma xam ci moom mais dafa bëri duñ dund mën naa wax ci moom si xol bu rafetam juuli Kaolack yëpp ko xam képp ku dëgg Kaolack xam nga juuli ndax noo koy xamee mooy dafa oyof maanaam yëgul nekk nit yëgul ay américain laa Amérique laa jógee lijjantiwu sa loolu moom da lay gis ak bëgg la parce que dafa bëgg nit dafa bëgg nit dafa fonk doomu adama nit nag boo gisee ko ko bëgg rek xamal ne ko wàllu yàlla mag la ndax ku xam dëgg-dëgg lan mooy xalifa yàlla ci kaw suuf lan mooy jëmmam mi mu adam deel mi nga fonk doomu adama di nga ko bëgg ak nu mu mel ak fu mu mënta bokk ak fu mu mënta dëkk di ko bëgg ndax boobaa màggaloo ko moom mais jëm yàlla ci jëmm axirul muhammadi bi moom ngay màggal ci moom moo tax taxoon sama sëriñ Cheikh Mamoun ne léeg-léeg da ngay jëflante ak moom fekk jëflante woo ak moom mais yàlla nga jëflanteel loolu lañu Cheikh Ibrahima xamal mu ne bët mais xool doomu adama kenn ko xool doomu adama di ko bañ duuli daal li ma koy ñaanal yàlla yërëm ko yàlla xare ko àjjana yàlla na dee dina flaayam yàlla na ko yàlla dëkkaale yénti àlama sallallahu salaam yàlla na ko yàlla dëkkale Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Ibrahima anhu yàlla na ko yàlla dëkkale Mawlana Cheikh Ibrahima Niass maa ngi koy jaale sunu alxalifa nag papa maay Ibrahima Niass maa ngi lay jaale sa doom sa xarit sa taalibe sunu mbokku taalibe di Mouhamed Abdallah di Djé Diouli maa ngi koy jaale tamit imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé imaam maa ngi lay jaale sa doom sa njaboot ndax yow yaay imaam Assane imaam Assane mooy Cheikh Cissé Cheikh Cissé mooy maay Cissé boo nee Cissé moom ëmb nga bépp axlu Cissé maa ngi koy jaale waa axlu Cissé yëpp di ko jëlee leen jaale seen doom bii nga xam ne ñàkk ngeen koo di di jëduuli seen taalibe seen xarit seen soppe maa leen koy jaale yal na ko yàlla yërëm yal na dee di noflaayam yal na ko yàlla delloo si jëmmam mim adam del mim del yal na ko yàlla dëkkaleeg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass dëkkaleeg ko Imam Assane Tidiane daay man ak ci mboolem jamono ci barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen waa Malben dëgg-dëgg seen liggéey rafet na yéen moom pays bi yëpp leen war di ñaanal yàlla li ma a neex si seen seen seen site mooy si si pays bi rek ngeen di dox si liggéeyal Cheikh Ibrahim rek te sama sëriñ Cheikh Mamoun ne lépp lu di def lu jëm ci Baye bu ko xeeb xam ne mu ngi liggéeyal Baye ndax tool la boo xam ne ku nekk mën naa béy ren ba déwén te du la yëg sa morom Malben maa ngi leen di ñaanal ngeen am bépp matériel boo xam ne bu baax la nekk si àdduna bi ak fu mu mënta nekk yal nañ ko jox seen site bi na wër xaalam bi ni Baye Niass nekkee na ko Malben nekkee international si zaahir ak ci baatin si barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yéen kenn ku si nekk nag yàlla jox la si càkkutéef si zaahir si baatin mais la gudd fan lépp lu ngeen sonn yalla ngeen ko jëriñoo lépp lu ngeen ji yàlla ngeen ko góob si barke pays bi ñu nekk si barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass si barke Cheikh imam Assane Cissé si barke alxalifa Pape Maye Ibrahima Niass si barke imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé jërë ngeen jëf kontaan naa juulee seen piis ñu ngi dee ñaanal yàlla du la fàtte ndax kóllëre sama sëriñ nee na du féetee kanam rek day war a féetee kanam féetee ginnaaw kon daay man ñu ne yow a ngi ànd eh, yàlla jëlee na la kenn reyu ko nag yàllaa ko rey amul kenn ku ko rey yàlla mooy rey amul benn doomu aadama boo xam ne mooy rey morom doomu aadamaam waxil na rek mais dëgg yàlla bu la namee jël rek anam bu nekk rek mën na la ko jëlee moo moo taxoon Cheikh Ibrahim tel ñu xamal ne lépp dina raaf bu mu des jëmm yàlla ji yàlla jëmm yàlla ji moo fi des lu des yëpp dee raaf man tamit dee sama morom dee dee yàlla mu gaaw mu yéex ku nekk am na lu lay rey te xamoo lan la kon nag Dj Dooley dafa sayid mën naa wax ne sayid rek ndax bu la fekkee euh, ak ni mu demee noonu sayid la euh, am na yoo xam ne bu ñu wéree dañuy sant yàlla ne alhamdulilah rabbil alamin dee bu amuloon dund du am juddu du am judd tamit bu amuloon dee du am kon dee moo jëdu judd foog ñuy dee di dund foog ñuy dund di dee alhamdulilah rabbil jóge na si dund goo xam ne nag day jeex waaye yàlla tàbbal na ko si dund ko dul jeex daay man alhamdulilah jërëjëfee Bañes jërëjëfee waa Malben alhamdulilah jërëjëf merci beaucoup.